yóbbu nga génn Sénégal euh, dem usobi woon ndax loo xamante ni artistes yi ko bokkaloon yëpp bari nañu suñu borom teg ko ci sa euh, euh, mhm. ñu seppi la ci tey nga jóge Sénégal ñu sama dëkk ma yor drapeau bi di ko tiitaroo mhm. ñu tànn ma Euh, pour ma dem jongante jeeg samay samay euh, samay nawle artiste mhm. donc ma fekk fa ñu mag a mag a mag ñoo xamante ne euh, mun naa ne ñooy vraiment àddina xam nañ leen mhm. àddina bi dañ leen xam mhm. borom bi def ma gañe damay sant ndax xam nga lu tax ma gañe Sénégal Sénégal moo tax ma gañe li may wax rek boobu ba tey ma leen nu ma mel rek Sénégal tey euh, ba ma commencé ba tey sama carrière euh, Sénégal ñoo ma may doole su ma génnee ñu bëgg ko lu ma def ñu bëgg ko donc tey su ma demee ba am ndam ñoom la ñoo voté ñoom ñoo ma bëgg ñoom ñoo ma teg fii euh, sant yàlla bu baax kontaan di leen delloowaat ndam ñoo ko moom. ok waaw taxawal fii la

Ahora, ñëwal tuuti ñëwal. na ñëw nii na ñëw daal la fekk si fii aéroport ñuy euh, xaar li nga xam ne moo di arrivée de Viviane ñu gis ni tamit yaa ngi ci biir orchestre bi tey lan loolu lan la lay def maanaam dafa fekk ni mu li nga xam ne moo di trophée bi. waaw di kontaan rek li ma naan Viviane gañewu ko ñun nii ñoo ko gagné at waa Sénégal waaw ndax Viviane dafa doon koo xam ne euh, ni mu melek ak ñun dootuñu ko waxati ndax ku gis Viviane rek dina gis Jolof Band ci ginnaawam waaye dina gis Yaat Mathiam gis ni ma mel moom ak ni ma demee moom. moo waral sama teewaay fii ndax du benn du ñaar laa ko jël si fii waaw ànd jeeg sama waa ji muy Ousseyn Mbaye du benn du ñaar ma ànd ak moom ñu ñëw fii ñëw teeru ko waaw. trophée bi nag bu ko jëlee maanaam Sénégal gépp la ko jëlal mu nekk mbégte boo xam ne ñoom dañ koy partagé ak moom mais est-ce bi ngeen ko doon liggéey ak moom c'était difficile. waaw du lu yomb mais xam nga moom li may wax rek moom euh, fi mu jaar la xam nga ku jaar ci Youssou jigéen sama baay boobu. ah am lu mu liggéey ba pare def variété fële ca Mbour kon donc Viviane euh, qualité am ku koy wax doo fi jóge waaw ñun ñuy liggéey ak moom di nekk ak moom ñun xam nan moom mooy kan at ki mu doon moo tax lii bettuñu li ma naan du sens mérite la da ko méritoo ndax Viviane li may wax rek parce que ñun dañuy génn léeg-léeg léeg-léeg ñu dem Cameroun léeg-léeg ñu dem Côte d'Ivoire Guinée xam nga dañuy ànd ak moom Gabon waaye nin ko fa def walla Mali ni ko waa Sénégal def boo demee ci dëkk yooyu léeg lu ko raw lan ko koy def waaw kon moom li may wax rek moom Viviane ba léegi li mu war a def sax defagu ko waaw man gis naa loolu. Euh, la fois passée am na benn faay bu mu defoon ba Sénégal yi doon ci wax. waaw non loolu erreur la rek xam nga te mooy li may wax léeg-léeg. xam nga nit ni moom dañuy dañuy fii fii Sénégal pour nga pour nga pour nga mucc fii waaw yombul quoi mais moom star la waaw Viviane moom dafa am ay lugam boppam yi nga xam ne moom lay sañsee waaw xam nga tey ku dem Amérique Beyoncé xam nga keneen ak keneen xam nga boo xoolee seen i sañse mais nag fii Sénégal dafa am lu nu moom te wax dëgg yàlla mi ngi koy doxal ndax Viviane tey yéen nii jigéen léeg dina sol dara suba ngeen dem wut ci ndax macha allah lu mu sol mu jàpp ko waaye nag keroog loolu am noonu xam nga caméra léeg-léeg nga sol benn yére mais bu ci flash dalee da ngay foog ne yére bi noonu la mel fekk ne flash bi moo def loolu waaye li ma la mën a xamal ne Viviane ku yiw la ku baax la ku nangoo liggéey la ku am jom fonk ñu ñun teewuñu moo waral tey sunu teewaay ñu bàyyi lépp ñëw fii. Viviane ku ne gis na ni Yann Mathiane ni mu fidèle ci euh, Viviane tey ji nga ñu mën a wax sa diggante ak moom. waaw mooy li ma wax sànq rek Viviane bu may wax ci moom du ma fi jógee muy sama xarit di sama jigéen di yaay booy sama papa yar ko ca Super Étoile ak sama papa Yamar ki nga xam ne moo nekkoon ci ci euh, Étoile de Dakar mm-hmm. muy Yamar Thiam di ku baax moom Viviane bu may wax ci moom at fi ma jaar ak moom duma ma fi jóge mu yar ma nag waaw ndax defe naa ne Viviane léegi ma def moom vingt ans waaw kon xam nga ne vingt ans boo ko jëlee samay at li ciy def dootul bari kon yàgg na ak Viviane mu fonk ma nag teg ma place moo tax duma ko weccoo kenn ku xam yaat ma caam xam ne dinaa dem nag di tëggal ay nit waaye bu Viviane xewle du ma tëggal kenn. Eh, waaw Viviane li ma li ma dund ak moom mu marqué ma bari na waaw ci ay ci bari na waaw bari na bu ma koy wax du ma fi jógee Viviane li ma dund ak moom ci lu ci mbëgte ah bànneex loolu loolu bari na waaw léeg-léeg ñu dem ci chaîne yoo xam ne dalay lay wóor ne fii nii mënoon nga tëgg musique bay bëgg a dee doo fi dem waaw am na saal yu bari dem nañ ko ci Europe saal yu mag saal yoo xam ne dangay dem léegi fekk fa vingt xam nga loolu yombul xam nga. kon dañ koy ñaanal rek gudd fan ndam li nag mu jikko ko ñëw ci ah, euh, euh, waaw Wally liggéeykat la jàmbaar la ku am jom la ku bëgg li muy def la ba pare gëm yàlla doyloo ko te loolu muy wax noonu dañ koy ñaanal yàlla jox ko ko ndax mérito na ko nag bala ko ku baax a ngi noonu. mais expérience bi mais mais mais disque d'or kenn mënu koo jënd. ñin ñooy wax rek. waaye Wally lu raw disque d'or war na ko mun a am ndax mi ngi ci tànk yooyu xam nga ku xamul rek mooy wax mais mi ngi ci tànk yooyu waaw ndax liñ naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ. waaw te olof Ndiaye def ne looy def ta xamoo ko boo na fekk koy defal du ko xam waaw. Marie ku baax la. da koy indi. da koy indi man géé ci. ah ci sama papa géé ci. Mhm. mu jël ay taraango yu bari nag jox ñu ko ci. maak sama papa. waaw biñ ko tëggalee ba mu pare jox na nu ay chèque jox nu xaalis ba pare yëkkati ay jasneer jox ko sama papa. waaw kon dañ koy ñaanal moom it ku baax la wax dëgg yàlla day jox liggéey akam. bu nu woowee studio wax dëgg yàlla. saay buy def album dama ciy participer xam nga mu sekk ak man ay teraanga comme li may wax rek man artiste yëpp laa sekk ak jàmm. waaw mais ci Viviane laa nekk. ku xam Viviane xam fa yaat ma càmm. waaye nag woykat yi ku ciy def album rek di nga ne yaat ma kaay ma ñëw barkelu te du yàq dara. jërëjëf jërëjëf.